laa ilaaha illa allah illa allah ashhadu ashhadu anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan muhammadan anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah waxal ne seede naa seede naa seede naa dëggal naa dëggal naa war naa jaamu kenn war naa jàmm kenn. lu may yàlla. lu may yàlla. seeti naa. seeti naa. dëggal naa. dëggal naa. Muhammad. Muhammad. mooy yonent yàlla. mooy yonent yàlla. seeti naa. seeti naa. dëggal naa. dëggal naa. na Isa. na Isa. Jésus. duur yàlla. duur yàlla. Isa bi yàlla doom doom góor yàlla. doom yàlla. waaye jaamam la. jaamam gëm nga loolu. nga loolu ci sa xol. waaw bu set war ngaa julli juróomi julli ci suba takkusaan timis gee suba nangul. at bu jot war ngaa or. benn benn weer. bu weeru koor comme weer wi war na la nga def waxtu boo amee alal mën a dem màkk aji nga dem màkk war na la benn yoon ci sa dund. boo amee alal mbaa nga bay loo xam ne asaka war na ci da génne asaka nangu nga loolu loolu mooy lislaam noo tuddoon noo tudd américo américo américo jaata tuddal Mouhamad al Amin Mouhamad al Amin Mouhamad al Amin waaw bu la Amin gi defee tuddal Mouhamad rek Mouhamad mën naa yow amul lu ki tey jullit nga jullit ñooy sa mbokk jullit boo mën a dimbale nga dimbal ko waaye bul xeex benn jullit bu ànd ak kuy xeex benn jullit santal yàlla wala alhamdulilah. alhamdulilah. wax naa ko naa ko war ñoo jàmm kenn lu naa ko naa ko Muhammad mooy yonent bi yàlla seede naa baatam la lu mu sànni ci day Mariama Isaa du yàlla du ay Isaa du yàlla du doom yàlla waaye jaamu yàlla gëm nga loolu loolu mooy lislaam lu bu set moom ngaa julli juróomi julli tisbaar takkusaan timis gee suba nan la ndax mu jot ma ngaa xool weer koor li ci tey jii nii nga commencé weer koor koor toog sax ñàkkoon ba si dund boo amee ne asaka war na ci mbar nga bàyyi da nga génne asaka nan nga loolu loolu mooy lislaam loolu si doon Mariam tuddee nañu Mariam Mariam mu tudd yow tudd na waaw jullit mooy sa bopp jullit boobu mooy dund ak waaye bu loolu benn jullit bu am la